mbokk yi ñi ngi ànd ak waa Sénégal ak julliti àdduna yëpp di naqarlu di ñaawlu kàddu yooyu nga xam ne ñu bari dégg nañ ko mu tasaaroo ci whatsapp ci facebook ci youtube ba indi ay wax ci réew mi ay gone yoo xam ne nee na ñooy dañuy woote jëmee ci yàlla nee nañ dañuy dund alquran ak sunna rek ba dajaloo ci groupe whatsapp tuddee ko noonu kenn ci ñoom yëkkati kàddu yu ñaaw yu joono yu ñàkk warma jëmee ko ci kilifa gi bàyyi ko fi barki démbu Cheikh Seydil Moxtaar yàlla na yàlla dolli ko njéggal ak yërmande ak ngërmande euh, keneen ca ñoom feelu ko kàddu yu ñaaw jëmee ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu wa euh, nun li xamoon mooy sénégalais bu gisee ku nekk ci naqar ak tiis day ànd ak moom seddoog moom naqar waak tiis wa ku ñuy néewal doole ku ñu tooñ mu taxaw ci sa pegg dimbali la moo tax ñu bari mësuñoo xalaat ne mësuñoo xalaat ne ab sénégalais dont ne du jullit dana yëkkati kàddu yu ni mel jëmee ko ci ay kilifa rawat na ci koo xam ne génn na àdduna wuy dina boroomam euh, waxuma la ak nag ña koy wax ñay yëkkati kàddu yooye ne ay jullit lañ ne dañuy woote jëmee ci yàlla yemuñ ca nee nañ dañuy dund alquran ak sunna rek bu doonoon ku jàngul dara waaye kenn ci ñoom tudd nañu école bu ñu xam ne fa la jàngee ba am ay diplôme. waaw Moustapha Cissé moom xam ngeen ko Moustapha Cissé xam ngeen ni mboolem groupe whatsapp yi xale yi nekk ci di saaga mag ñi Moustapha Cissé mii loxoom nga ci biir. mu am matadi gu toll ne mën a jur xale yooyu yëpp regrouper leen def leen ci ay groupe bi whatsapp toog fa di tasaare lim bëgg a tasaare waaye ak di ŋàññi awliya ullahi ñim ci bëgg a dana ko boole ni nifaq gu toll ne bu duggee ci gurup dafay jéem a tafu ji ci mutasawifiin yi di leen doomu bàjjanoo ko doomu nijaayoo man mii jarbaat la ma doon woowee ma koy woowee nijaay waaye gannaaw gi laa xam ni moom moo ngemb ay ibaadu waaye ngemb ay bandi yoo xam ni bu saaga jotee au lieu moom mu génn saaga bandi yoo yi lay génnee ñoo koy saagaal seex ja xam ngeen ko mooma fi tifaare woon saagay ndey yoo xam ne dama noon kii dootuma bokk ak moom group ànd ak lépp Moustapha Cissé bu ñëwee ci groupe bala faa wax wala mu indi fa ku mel na Mourtada yi pour mu def fa débat balaa wax danaan nañ ma ajouté Cheikh Dia ba noppi te Cheikh ja moom xawma dara waaye maa ko raw moom boo ko déggee ci groupe day saagay day Moustapha Cissé ñooñu la bari ñooñu la bari boo ko gisee mag la moo xam ni mag mu bon mooy Moustapha Cissé parce que day matt di ëf nekk na ca groupam ba alquran ak sunna gannaaw ba mu fa ajouté ma xëy ni ko man wax dëgg yàlla groupe bii dama la koy abal ndax man du ma fi nekk ngeen may saaga may fay fayu benn saaga yi ma leen di saaga léeg-léeg sama waa kër ñëw ni ma waaw Malick koy xulool ma ni leen kenn ma ne leen xaal boobu ngeen may yóbbu noonu parce que li ngeen di yàq samay sëriñ mënuma koo faj munuma lu dul yëkkati lu mel noonu wala lu tol noonu rataxaat leen ko loola ci boppam laay ba léegi dama leen di seen groupe li ma lay wax rek ci ni faa xam gi ñëw waaw nangam nangam xam nga xale yi nangam nangam de dama bëggoon nga toog ñun dañuy waxtaan rek ñun ñëpp ñoo andi di liggéeyal diine li ciy leer ñu leeral ko mën nga koo leeral comme manit mën naa koo leeral ku dëgg feeñe ci sa kàddu rek sa morom nangu ko yooyu lay wax théorie la nga gëm ko mais moo ngemb ñi saaga ju suuf man maa la ko wax wallahi lazi la ilaha illahu am bés am bés ku ñuy wax morgey euh, morgey xam ngeen ko ci xale yooyu di saaga ci whatsapp bi la bokk Mor Gueye dal ci kaw Seexul Xaaju Omar Fuuti yu taal Seexul Xaaju Omar laa wax la Mor Gueye saaga ngaanguma ci dama jël ojo bi bind ci turu Moustapha Cissé ni ko déglul lii comme ne woon na ma toog fi dootuñ la saaga dootuñ la saaga dootuñ la saaga toog fi ñu ànd bokk liggéey bi ma toog fi ñu saaga Seexul Xaaju Omar Fuuti yu xanaa danaa ko alerter laaj ko ba xam lii naka la koy saafara Moustapha ba ma ko ko waxee ay vers dix heures jàpp onze heures jëm di noonu ba maa ci daara ji wàccaguma une heure laay wàcc ci daara ji Moustapha Cissé ñëwul ñëwul ñëwul ñëwul ñëwul ñëwul ba ay boori quinze heures ma gisaal ko ci groupe bi ma ne ko Moustapha Cissé audio Mor Gueye boobu déglu ko lim ci wax ma wax ko ko ci groupe ba dégguma ko ma jël audio Mor Gueye ba envoyé ko ko ci xaasam jël ko ci suuf ni ko Mor Gueye mii li mu wax ci Seex Alxaaji Omar da nga koo déggul wala da koo dégg te pare pour faj ko munuma dinaa ko faj xam ngeen ni xale yi nangam nangam lii ñuy def ñun sant ñu leen lii dañoo bëgg waxtaan rek leeral rek ku fi bind loo xam ni am nga ca ak wuute waxal la nga ca wuuteeg moom waaye jarul ngay saaga ko bind ngal ngal ngal ngal ngal ngal ba ma ni baax na Moustapha Cissé mii dana ko faj Moustapha Cissé ñëw ci groupe ba naan waaw Mor Gueye waaw bu ngeen di matt nag da ngeen di ndànk ndax kat ab dof buñ la ko indilee nga war ko fajj nga war ko pikir de ya koy nax ba pikir ko rek manam man dama tok di xol Moustapha Cissé di deglu waxam ji ak ni muy commentaire sagay morgue yi mu mujj melne man man dama jëli Cissé ngir mu ñew and ak morgue yi sagal ma cheikhul hadji Omar sama xol bi jeex tak kérok ba may saaga morgue ci groupe ba dama ni khalifa mbub man groupe bi ma ngi genn groupe bi maa ngi génn te kuy mutasawifin maa ngi lay ñaan nga génn ndax groupe bi mutasawifin bu fiy toog léegi alkande gi leen di dal wàcc ci sa kaw man pare naa ci bii groupe loolu moom a génne groupe bu alquran ak sunna Moustapha Cissé nekk fa ubbi yeneeni groupe di gembu ay donga ñuy saaga awliyaullahi kii mooy Moustapha Cissé waaw boo ko waxee mu naan la euh, man magum saalum saalum la man du ma topp ku may nax seen tappali yooyu ci laa nekkoon dégg ngeen keroog bi fi sëñ Mbay Si man Mansour euh, toogee ci boppi xilaafa gi mu dal ci kawam wax ko lim ko wax lépp am ay mbokk yi dal ci kawam ni ko Moustapha si sa wax ji ñaaw na ci kilifa kii xalif général de Tidiane la ngay wax ak moom yi nga koy wax xam ngeen lan la ca teg jamono jingen ngeen may wax yi ngeen may wax bu ma fekkoon ca Tidiane ja dina len wax lu bon waye yeen da ngeen di ay Tidiane motax ngeen meuna wax li comme man nag gennina ci Tidiane ja mënumaa wax li kérok lako ko Abdoulaye Cissé retiré ci groupe bi ni kii na Tidiane ñep bëgg wax lu bon naan suma nekkon ci Tidiane ya dina len saga comme ni ngeen di saga parce que yeen ay Tidiane ngeen meun ngeen saga lolu saga na kullu Tidiane yi kérok lako lako lako lako ci groupe bu waxul ja dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg saay-saay boo koy xool bu la Moustapha Cissé ci ma nga ca Italie fu ñu wax Verona boo demee Verona ca mosquée ba foo laajte Moustapha Cissé ibaadu dañ la ko wan mag mu bon la Mourtada Gueye ba mu fi ŋàññee Seexu Tijaani Chérif radiyallaahu taala anhu kan moo ko doon défendre Moustapha Cissé mi Moustapha Cissé mii mooy gone yi dafa am jëmm ju nekk ci seen gannaaw bu ma déggee te bëgg naa mu dégg kàddu yi xam na bu baax ne moom lay waxal xam na turu kii wax ak moom it ay fan ca gannaaw laabiri woon naa ko ne ko yow dangaa wor dangaa wor wor mooy mag mu toll ni yow nekk foofu ci itali nekk ci biir ay xale Euh, xale yoo xam ne bu dee am njàng rek ñi ci ëpp ñoo la raw waaye comme yow mag nga ñu jàppee la kilifa ak sa làmmiñ wu ñaw te ñaaw nga dajale leen ci groupe whatsapp tasaare leen ci yeneen groupe ngir lan nañuy saaga nañuy xaste nañuy luññutu ay awray nit ngir siiwal ko rawatina kilifa yi te lañuy wax ci ñoom yëpp ñaaw njortu ak mbon gu fees ci seeni xol ba mënatuñ koo denc faw ñu génnee ko waaye kilifa yi ñuy wax ci ñoom guddeeg bëccëg xamuñu ci ñoom dara xamuñu ci ñoom dara euh, moo tax mbokk moomu dafa war a bàyyi xel ne xëy bu rafetul ngont daa war a rafet xëy mu rafetul mooy lan yàlla bàyyi la nga dund ci kaw suuf lu ëpp genn wàllu xarmu dund boo xam ne yow xam nga sa bopp xam nga bu baax a baax ne la ci ëpp rafetut la ci ëpp jaarul yoon bu doon téeméer la juróom ñeent fukk ak juróom ya dara baaxut ca boo xëyee ne dangay tuub boo tuubee da war a jaar ca yoon wa gën a jub di rafetal cenam gën a rafetee waaye bu fekkee sa tuub mooy bàyyi yooya léegi ne dangay woote jëmee ci yàlla te yow ku la xamut it xam nga sa bopp xam nga ne yow jàngoo alquran jii xamoo ci dara sunna xamoo ci dara alquran ak sunna li nga ci xam yëpp mooy aw tur tur bi sax mënoo ko wax bu baax boo ko yëkkatee rek ñu xam ne yow jàngoo dara nga ne da ngay woote jëmee ci yàlla te sa àlliwa gàttee noonu say jikko kenn yarut la ba mel na mu war a mel sab xol setut na mu waroon a sete waaye mandax ku xëyee xëy rek man ngaa xëy ne damay woote jëmee yàlla yow bi nga tuubee li la waroon mooy dellu ca téere ya ca tàmbalikaayu jàng ya koo dendal te mu raw la rek nga jéem a yokk sa àlliwa jéem a jàng jéem a xam dara ci sa diine waaye di roy ci nit ñu baax ñi di wax lu baax di ko def comme sa xëy rafetul nga faxe sam ngoontu rafet am maa ne tuub nga léegi sa liggéey mooy doo noppi guddi doo noppi bëccëg langay wax dara du ca xam-xam dara du ca diine lépp ay kàddu yu ñaaw la ay sos la ay xaste la di ca xirtal ay ndaw lii mooy wor dëgg dëgg dëgg mooy wor gi nga xam ne war nga ko ñooñu léeg-léeg ñu tàbbi ci fitna yoo xam ne yow yaa nekk ci gannaaw yaa leen ko dugal yaa leen ca dugal mbokk yi bu ngeen fàttalikoo ay weer ca gannaaw. am na ngóor su yëkkati woon ay kàddu yu joonu jëmee ko ci kilifa yi ñu tudd ba tey jëlee ca fitna ju metti ndax foofa mu doon liggéeyee ca Fuuta dawee na fa bàyyi fa ay bagaasam ñu di ko seet fii mu dëkkoon ci Touba doon fa tabaxu kër ay nit dem nañ ca kër ga tojate ko yàqate lépp lu fa nekkoon di ko rëbb di ko seet boobu ba léegi xaw ma fan la mujj te ka ko yóbbee lépp kàddu yooyu ma ngi ko yëkkati ci groupe boobu. saa bu nit tàbbee ci fitna nag ci ndawam ñooñu mu ne bokk ci ruqam mel ni moom yoonam nekkut ca kenn du ko dégg bu demee ba yaakaar ni nit ñi fàtt nañ ko mu génnaat delluwaat ci liggéeyam mbokk ragalal yàlla mbokk ragalal yàlla euh, fit wi ngay woote di wax ne danga ñeme fit wi yëpp mooy man maa ngi fii ci Italie ñi may waxal bu ñu ma bëggee lor it mënuñoo jote ci man. Eh, wallahi na la leer ne borom bi subhanahu wa taala muno faxe faxe ba asmanam si du muno tiim ba génn suufam si yag yag rek da nga daje ak mom dana la hisab jëfi reer ji ngay jëf jëfi càngute ji ngay jëf waye ñi ngay reeral di len sànk di len def lo ñombe yi lepp yalla la ko kon jot na nga seetaat sa bop jot na nga nafarat xam ne diine ak loo ko bëgg-bëgg li ngay def nii yéene ju ko mën di lal diine dafa am ñu ca war a woote eh, di ca wax mooy ñi ko jàng te xam ko tey jëf ngir yàlla waaye ku mel ni yow diine soxlaa na la faneen fu bokkul ak waar woowu ndax waar la woo xam ne tuuti nga ca cuuj day xam lekkam cuuj day xam lekkam yow loolu mënoo caa bay lu toll ni tarfata ay ni waar woo da nga a génn ba mu set muy waaru woote jëme ci yàlla ndax xamoo ci diine ji looy woote. amoo jikko yu baax yuñ la mën a royee yoo xam ne euh, war nga caa mën a woo kenn euh, waaye maa ngi ñaan mbokk yi nga xam ne ñooy wax ci rajo yi ak ci jumtukaay yu jokko yi xew nañu ànd ak dal ànd ak teey te xam ne kàddu lu mu ñaaw ñaaw ñu jëmee ko ci sa kilifa xëy na métti na waaye na la wóor ne borom bi subxanahu wa taala mi bind ay mbindeefam muccul. fa wax gën a ñaawee gën a bone ay jaamam yëkkati nañ ko jëmee ci moom jàngkat yaa ngi koy jàng yàlla di ko wax ci alquran yonentam bii mu tànn nga xam ne mooy sangu bindee fi muccul ay noonam amul wax ju bon ju ñuy wax nit ci kaw suuf te jëmewuñ ko ca jëmmam jooja sallallahu alayhi wa sallam naka noon saxaabaam ya naka noon nit ñu baax képp ku mas a baax ci kaw suuf yàlla nattoo la ay cat yoo xam ne jikkoy weñ lañu yor la ñuy wër yëpp mooy fu salte fu taq fu xesaw moom la ñuy eh, moom lañuy wër buñ ko gisee foofu lañuy ñuy dal buñ ko gisul sosal la lu ni mel di la ca waxal nañu xam ne ñii nekk fii di waxanteeg ñoom ak di leen tëkkoo ko seet yooyu amul benn njariñ day jur fitna joo xam ne yow mi koy taal xam nga fa muy tàkkee waaye fan lay yem wump na la wump na ñëpp kon li am solo rek mooy ñu xam ne yàlla gëmmul nelawul yàlla mooy àtte te dana àtte lépp loo xam ne mi ngi xew ci kaw suuf